moo di réew mi boroom xam-xam yi bari nañu bu doon xam-xam rekk mooy tax réew mi jag kon jag na bu yàgg waaye nag xam-xam bu ko jikko yenuwul du jariñ la mu war a jariñ loolu moo tax réew mi fi mu tardé mu tardé fi boobu ba léegi ndax xam-xam kese doxalul dara candidat bii ñu àndal la yonent yàlla yuusufa waxoon ba ñu koy dénk lu mel ni lii mu bëgg te mooy yore réew mi ñaari baat ya mu waxoon nekk na ci candidat bi te mooy inni xafizun alimun xafizun ku fegu la xafizun ku jub la xafizun ku maandu la loolu nekk na ci candidat bi toog ci soron alimun itam xam-xam ba lañ ca yaakaar yëpp mate na ci gàttal daal candidat boobu candidat bu mel noonu xafiisun alimul moo ñëw di sàkku ci leeru Serigne Touba ci barke Serigne Touba pour ñu teg réew mi ci loxoom ndax itam li ñu ci naqari ci réew mi yëpp jóge fi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Modou bi muy nuyoo la wax bi mu ko jot nuyoo sëñ Moustapha ba ci gàmmu da ko neen noo ngi gën jabootu may gën a delloo seen bopp ci jabootu sëriñ bi waaye sëriñ bi noonu la wax Laaji Isaa ne ko noo ngi leen di nangul bu baax di ci njaboot bi ngeen bokk mun na ñaari baat yu rek moo tënkaat li nga wax te loolu waxtu wu nekk loolu la ñuy dund biig rek sëriñ bi dana yónni bis boo xam ne njabootu Alaaji Malick ñoo ko doon def ci dëkk bi. président sëñ Sidi Ahmed. jàqalante bu mel ni bu rafet boobu rek. la ñu fa waxtaanee. mooy mag ñi mësuñoo tàggoo. ba leen yàlla boole bokk. boole leen diine yi. boobu lañ àndoon ngir yàlla. ànd googu ngir yàlla ba ndëgg ni ñi ñi ñi ñi koy donn ñi ngi koy donn di ko dundal di ko rafetal. ba ci sëriñ bii. dundal loolay rafetal ko rek mooy yitteem. ndax sëriñ bi. li ko ñëpp di waxee. diine lislaam rek mooy li ko ñor. bu sañoon itam nit ñi xam ba mën a jàng ndax nam taal ba foo foogee fa tàmm kon nag ginnaaw da ngeen ñëw fekk fii li ngeen àndaal li ngeen fekkoo loolu kay day yomb lool ndax lu baax rek ngeen ngeen àndaal ko wut si fedd li ko la ngeen fi wut si delloo seen bopp ci biir njaboot sëriñ bi ngeen fi wut si fekk ngeen sëriñ bi nangu leen lépp sant yàlla rek sëriñ bi gën leen mbégte bu baax a baax sëriñ bi nee na am na mbégte bu baax nag xam xam na la nekkoon foofu xam na li nekkoon foofa xam na nekk fii ñaari kàddu rek ndax eh, Abdoul Wadoud wax na yóbbante bi dafa nekk yóbbante bu yàgg te gàmm ga da Sëriñ Moustapha waxoon nga dañuy fas yéene dem ci élection yi ñu ñëw di feddali yóbbante boobu man nag li tax may wax rek mooy dañu bokk projet projet bi mooy tabax doomu aadama ma dégg nag université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne posé nañ première pierre bi fii man ñoo ñoo àndoon dafa xaw a. man may jàngalekat tabax université boo xam ne am na ñaar fukki at ak benn ci ren bi ma déggee projet boobu man ne dafa nekk projet boo xam ne dafa méngoo ñun suñu programme ah li ñu indi fii nag mooy mébét bu ñaan mu ànd waaw da mooy yore réew mi bis bu ko suñu borom tuddee projet boobu ngeen sumb muy université Cheikh Ahmadou Bamba du sax intérêt Sénégal rek wante intere àddina bi yëpp la comme intérêt àddina bi yëpp la nag dafay obligation pour ki fi yàlla di teg ëllëg moo bàyyi ci bët loolu daal laa bëggoon a wax parce dafa nekk projet nekk waaw sëriñ waaw

dem si xalif général des Tidianes suñ papa sëñ Mbaye. xam ni sëñ Moustapha nga yar si loxo noonu. sëñ Moustapha itam bàyyi Mansour moo ko yar. ñu ngi juddoo mu tuddee ma ko kenn tuddee wu ma El Hadj Malick kenn tuddee wu ma. sëñ Babacar mais sëñ Mansour dañ ma tuddee. ndax moo ko yar moom tam moo yar xalif bi. ma dem ni que dama bëgg nekk candidat man ma candidat man ko ci nekk président. président ba pare ma ne ko lu tax mu ma li nga am Macky Sall waaw soo génnee si mbedd mi koo taseel dafay tàll loo xam nga tëf si loo xam si milliards yi daal dina am poche mu ko moom soo ko ma loolu Macky Sall ko ma ni ko waaye Macky Sall am na lu mu am te man aw ma ko ma ni ko bërki démb dama romb palais mu waroon fa jaar ñu bloqué sama oto ñaari waxtu mu ne ma jàll ndax Macky Sall mu fa nekk ma ni ko sama ab agi daf daan wax naan su élection ñëwatee ñu ni ñëw jël réew mi di ko teg ci seen loxo nan ko seetaan parce que li may nekk nekk Abdou Aziz nekk xalif général des Tidiane Abdou Diouf bi su ko neexee du mu dëkk bi kon ñoom am na nañu doole bu nga xam ne bii suñu jëmee si élection ñooñu seet ñi nga xam ni makaarimul axlaq daje la suñu ñu dénk leen foofu nag la ñu toll kër gi kenn mënu def dara si Sénégal te mënu fa li may wax euh, ulul baqiya euh, doomu mag mi waaw maam maram mooy mag doom yi mooy sëñ Touba ak sëñ Hajj yéen xaw naa xam ni fasaadi fil ard su fekkee ni nag ñu ngi jëm ba lu mel na président de la République moom ñu seet que mu bokk si parti bu nga xam ne bii sëñ Moustapha bu sëñ Cheikh mooy président bi waaye mu joxoñ ka man tam parti bi ma nekk di bés du ñàkk Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha ñun ñaar ñëpp ñu ko waaye ñu yëg nii joxeñ bi du mët mukk tànk ñëwuñu fi wax leen ni ñun kii la ñu joxe sàkk nag ngeen wax nun moom la wala du moom mel nag am nañu droit sàkk si yéen ñaan jooju am ni sa maam seen Tuubaa moo ko fii bàyyi te amul sikk si nii mi ngi si yow ñaan jooju rek la sàkk bi may defar bés du ñaat dama dem seeti sëñ Mansour ni ko damay ngénte bés du ñàkk dañuy créé bés du ñàkk ñu ma kaay ma ñaanal mu ñaanal mu mu génne xaalis bu wala jëf ñu ma xanaa ko la jox njëgu añ d'accord na si li ngay def ma ni waaw mun ma waaye des na ma ni ko nag mun ma sa maam ba sa Tuuba lii ngay ngénte ni si amee cër la si amee demal nga seeti ko ma ñëw fekk fi ak sunu baay si Sidi Mokhtar mun ma yow sama taab sëñ Moustapha ay seex ñeen waaye sëñ Moustapha sama bos moo la magee six mois bi ma ñëwee mu ñaanal ma waaw ni ma lii dem si am cot kon nag naa la ñaanal di ko mu barkeel loolu yëpp nag la mu dajale moo tax sëñ bi ñu ñëw fii di sàkk ñaan ñaan rek la si di ñaan yàlla su ko yàlla tegee si bopp réew li nga xam ni moom la mbébét te dara rek a ko ñor dama ni yàlla ministère boo gis si gouvernement bi yàlla dénkoon na ko yonent waaye benn ministère la jëlal boppam iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaan min alaq iqra wa rabbuka al akram iqra bismi rabbika yàlla délégué wu ko kenn éducation la tarbiya la moo ko jëlal boppam moom nag si loolu lay nekk nga ñaanal ko si baax na. Euh, moom dëgg naa ko xam. saafara dina ci kër. waaw waaw ñu ngi Arabie Saoudite ñu ngi ko. waaw seen ñaari mbaay bokk seen ñaari mbaay bokk lay bañ. ak daan daan soxna ak soxna ki ne fa. kon amuñu woon gën a ñu woo keer. man nag Abdou Fatah tam depuis cinquante ans. cinquante sept ans.